nit yaa ni gën a sonn comme di leen di jaajëfal bu baax a baax euh, am na nag tiis ndaxte suñ sañoon euh, ñoo ngi suñu liggéey yéen tamit yée ngi yée ngi ni si seen yite mais euh, dañu teg ab injustice injustice mun naa ne pour la troisième fois si ñaari at ñu couper suñu signal tubaab yi nag dañu am lu ñuy wax une fois ça passe deux fois ça lasse trois fois nag ça casse bi ñu ko ñëkkee def 2021 mars 2021 woote wuñu sit-in euh, porté wuñu plainte doon jàpp ne ñooy su état de droit neen bàyyi yëf yi continuer suñu liggéey ren événement Mbacké yi bi mu amee février 2023 bi ñu daal di woote sit-in daal di porter plainte au niveau de la Cour suprême ba février ba léegi cour suprême enrôlé wul suñ dossier maanaam joxaguñu benn date ne bis sàngam ñëw leen ngeen plaider de dossier bi suñu waxee ñu ne ah le temps de judiciaire n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire des gens ordinaires n'est pas le temps médiatique mais le temps judiciaire politique est plus rapide que le temps médiatique lu tax naxte si diggante bii nii bi nu déposé suñu plainte ak léegi ab politicien tey am na jafe-jafe ak beneen politicien ñu daal di ko teg daan ñu dem appel ñu tegaat ko daan amaat na jafe-jafe ak benn jigéen ñu teg ko daan ba léegi ñuy dem en appel kon si diggante bi am na ay procès te ba léegi ñun suñu procès bi ñu déposé woon ba léegi kenn euh, kiyogu ko planifié gu ko euh, bi yoon nag injustice mënul weesu li li ñu dal semaine bi passé ndaxte événement xew na man mii nekkoon naa ci plateau keppaar gi daal di def sama analyse en tant que juriste en tant que avocat bi ñu ko defee ci saa si ñu daal di couper suñu signal te ba léegi xamuñu kan moo ko couper ak lu tax mu couper ko bi nu laajee Babacar Diagne ci saa si dafa ne moom il n'est pas derrière ça que su fekkoon moom la dina woote dina def mise en demeure mais bi yoon du moom. Euh, ñu laajte xool feneen ñoom ñëpp ku si nekk comme ni ko Moustapha Diop waxee ku si nekk daanaka patate chaude la euh, bi ñu demee nag ba si parce que mujj naa laaj DG Canal Plus ne ko euh, lan moo xew ban kan moo la wax dagg sama signal mu ne ab leetu ministre de la communication mooy Bocar Thiam waaw moo ko ne mu coupé sunu signal pour. message mensonger et subversif maanaam état bi dafa jàpp ne li ñu doon wax du dëgg te tamit day yee fitna man nag keppaar gi defoon naa émission bi li ma wax ñaari la benn gi mooy euh, le droit n'a pas di la politique a été lu tax ma ne la droit n'a pas di dit ndaxte mbirum viol mbirum agression sexuelle euh, il faut déjà nga wane conjonction sexuelle maanaam jaxasoo am na te loolu waxu ndaw si rek la gën lu nu am donc ba léegi amul lenn luy wane ne que conjonction sexuelle am na loolu moo tax ma ne le droit n'a pas été dit et la politique nag a été dite ndaxte gis neen sorti ministre de la justice bi ne acquittement amul ci dossier bi te en tant que professeur de droit acquittement tey ci wàllum crime maanaam suñu la tegul benn daan ci wàllum crime loolu tu es mooy différence ak relax relax si wàllum délit la ñuy wax relax fii nag kii di Sonko kenn condamné wu ko si wàllum crime maanaam viol ak menace de mort donc acquitté nañ ko loolu mooy dëgg mais tey su demee ba taxaw ne kenn acquitté wu ko loolu day wane li nu wax mooy que la politique a été faite c'est droit ñaareel bi mooy kii di Pape Ndiaye depuis trois mois ñoo ngi koy ñoo ngi koy tëj kaso te Pape Ndiaye li mu wax mooy daa am ay magistrats yu d'accordul si ñu yóbbu euh, dossier bi ci chambre criminelle te l'histoire tey lui a donné raison parce que effectivement décision bi génn semaine bi passée euh, du compétence su chambre criminelle donte mun na requalifier mais décision boobu noonu tey mooy wane ne que effectivement li Pape Ndiaye wax dëgg la chambre correctionnelle moo ko waroon juger mais fii nii amuloon benn charge suffisante pour yóbbu ko chambre criminelle donc tey Pape Ndiaye encore une fois ñooy ngi woote libération ñoo ngi woote tamit indemnisation am depuis trois mois te ñoo ngi woote sax ñu honoré ko parce que li mu wax tey wane na que c'est un journaliste d'investigation que li muy wax xam na ko te fu leer la ko teg donc euh, loolu laa bëggoon wax beneen point bi mooy gis naa si réseaux sociaux yi ñu bëri ne ah Walf de mooy wa euh, kumba amul ndey man damay ne Walf kumba amul ndey la kumba amul bàyyi la tamit parce que tey suñ baay nekkatu fi te moom moo nekkoon suñu avocat moom moo doon défendre tey njaboot bi parce que benn njaboot la ah muy euh, bi mu jur ak buñ ko jural tey nag euh, li xew mooy si Lamine waxoon na ko ndaxte ne woon na politiciens yi laata ñuy yéeg pouvoir ay démocrate leen maanaam dañuy ñëw jege askan wi wante nag suñu demee ba am li nu bëgg dañuy nekk ay dictateur lii xew coupure signal bi te joxuñu benn notification te article 192 si bi nu sukkandiku si code la presse dafa ne il faut ñu notifier écrite motiver jox ko nag responsable entreprise bi te loolu ba léegi amagul kon loolu noonu tey moo ñu mayuñu tey ñu dem gisi suñu juge des référés pour wax ko mu lever suspension bi kon ba léegi tey injustice bi nu bi nu am nii mun naa ne lu amul fenn la jaay doole dëgg la euh, ba ba noppi tamit am na lu nuy faral di wax waa état lii wane ne que ñoom si jaay doole lu nekk muy force reste à la loi force reste à la loi nag wax dëgg yàlla la loi c'est une fiction invention wu nit la ndaxte bu njëkk ba philosophie li ñu doon wax mooy état de la de nature ñu dem ba gis ne que ku mel ni Hobbes dafa ne woon l'homme est un pour l'homme ñu gis ne que il faut ñu créer li ñuy wax état la loi pour mun a aar ñëpp mais tey nag li nu gis mooy Euh, la loi n'est plus là pour protéger ñoom li ñuy yëkkati mooy la force pour jëlaat obs nee naa l'homme est un loup pour l'homme damay ne l'État est un loup pour l'homme tey force bi ñuy wax suñu waxantee dëgg fan yi passé du sax le peuple mais pour man force bi c'est les sans voix baadoolo yi nga xamante ne génn nen ne non trop c'est trop non à l'injustice non à euh, lu mu tëddati euh, jaay doole bi yooyu yëpp ñu xeex ko donc loolu noonu tey mooy wane ne que euh, sénégalais yi euh, li daan am ndangootuñ ko te ñun ñëpp nag li ñu bëgg mooy ñu liggéey parce que rôle Walfadjri tey c'est rôle qui est essentiel li ñu bëgg tey mooy gindi askan wi wax leen lii am les enjeux tamit participer à la démocratie du Sénégal te lii am mooy dëkk bi euh, état bi ñiy amee pouvoir tey dañu mépriser dañu tuutil askanu Sénégal les sans voix lu tax ma wax loolu mooy képp kuy yëkkati di xeexal askanam kenn état bi du ko rendre mukk hommage du ko delloo mukk ñukkal Sidy Lamine Niass léegi tey mu mat juróomi at bi mu génnee àdduna bi mu génnee àdduna ñu bëri doon neen wax ne que maison de la presse nen ko euh, nen ko ko tuddee te may fàttali moom moo ñëkk joxe teg euh, première pierre si maison de la presse mais état bi daful loolu euh, en 2020 dem si yàlla Babacar Touré bi mu génnee àdduna te mu nekk ku baax ku ku méritant état bi tegul vingt 24 heures mu daal di ko jox maison de la presse daal di ko tuddee fan ni passé tamit gis neen ko dem si yàlla Mame Less Camara bi mu génnee àdduna même pas vingt quatre heures ñu jël maison de la presse tuddee ko ko te ñoom ñëpp mérité neen ñoom ñëpp ñu baax leen xam naa leen bu baax a baax mais dama ne Sidy Lamine tamit il n'est pas moins méritant mais tey le vrai problème mooy le vrai problème mooy képp kuy xeexal askanam état bi dalay jàppee noonu tey démb Sidy Lamine la ëllëg benn Guy Marius Sagna état du ko mus a rendre hommage loolu mooy dëgg képp kuy rendre képp kuy xeexal askanam état du la faale état day jàpp ne que rendre le hommage sax ay appel à l'insurrection la wala leneen kon encore une fois il faut que injustice yi yépp ñu teggi ko tey nag ñun lii nii ça nous rend ça nous porte préjudice ndaxte euh, man sama pap def na si man yar def na si man xam-xam mais nag wax dëgg yàlla jàngalul ma luxus xaalis ñun dañu amee entreprise amee ay charges amee ay dépenses chaque mois bi ma ñëwee bees charge Walfadjri yi xëy na ay 20 millions la nekkoon par mois tey ñoo ngi à près de 60 millions multiplier nañ ko par 3. te loolu moo tax ba léegi lu jàppoon mooy suñu personnel il faut ñu mettre leen à l'aise il faut que ñu maintenir leen fii nii démission yi licenciement yépp amul ginnaaw yàlla wax dëgg yàlla ndax li nu teg mettre mettre leen dans de bonnes conditions xëy na tamit moo tax mais nag wax dëgg yàlla euh, à l'impossible nul n'est tenu euh, moo tax tey jël nañ décision déposé naa sànq benn note de service personnel bi ma liiral leen ko mooy les récents événements ont provoqué des conséquences néfastes sur la bonne marche de notre activité avec la coupure sans délai de notre signal TV, ce qui ne sera pas sans conséquence sur le personnel qui doit se battre afin de sortir de cette impasse. Tout le personnel du groupe Walfadjri est d'ores et déjà mis au chômage technique et des licenciements collectifs suivront pour la survie de l'entreprise. maanaam fi ne nii comme que amatuñu suñu gagne-pain dañu ko xañ faaw ñu répercuter ko tamit ci suñuy charge moo tax personnel faj Walfadjri yépp tey teg na leen chômage technique mooy weer bi su deewee xamuñu fu ñu leen di fayee ndaxte bàyyi ñu ñu liggéey suñu mayoon ñu liggéey duñu am mukk problème depuis ñeenti at mu suñu am problème ñaareel bi tamit kenn du liggéeyloo nit ci zéro moo tax it ñu ne licenciement collectif tamit moo ciy topp fi mu ne nii daal li nu bëgg ñoom état mooy Walfadjri tëj ñun nag di def le tout ba Walfadjri du tëj mais nag il faudra serrer la ceinture. beneen point bi mooy état tey nee naa sànq déclaration de guerre la ñun tamit on va pas attendre l'autre jour fi mu ne nii activité état activité gouvernement lépp dinañ ko boycotter parce que li ñu jàppoon mooy li ñu jàppoon mooy eh, ñoo ngi ci état de droit ñuy liggéey ñuy jël seen euh, euh, meeting di leen diffuser te wax dëgg yàlla fay ñu woon sax lu ko jar day ñëw ñuy waxaale lu mel ni état maanaam opposition sax ñooy gën a fay <coughs> mais nag pour accepter pour que mu am euh, équilibre moo taxaw ñuy nangu loolu fi ne nii nag <coughs> boycott la fi mu ne nii nag la dinañ dem ba jeex du leen mayeti dara nen ne Walfadjri daa jeng nangu naa nen ne Walfadjri pro Sonko la nangu naa comme que ñoom léegi dañ ñuy xeex ñun tamit dañ leen di xeex Sénégal nag tey moo ngi à la croisée des chemins man de waxoon naa ko 19 mars bi passé nee naa góoma élection 2024 ndaxte état léegi dafa nekk si xeex am na ñett bomb yuy ñëw suñu kanam mun naa sax wax ne que ay bomb atomique la bi si ñëkk tey mooy arrestation wu Sonko ndaxte gis neen condamnation bi li mu jur Sénégal tey suñu demee ba di ko arrêté di ko yóbbu kaso ah gëm naa ne que dëkk bi daal du nekk ci si jàmm ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy inéligibilité Sonko loolu tamit nee naa jàmm du am ndaxte tey sondage yëpp li muy wone mooy Ousmane Sonko mooy le favori pour nekk cinquième président de la République dama sondage yi jënd naa ko moom la président am moom la ambassadeur yi am sondage yi wane na qu'il gagne au premier tour sax troisième bombe atomique mooy bien sûr troisième candidature loolu sénégalais yi duñ ko nangu du conseil constitutionnel mooy décider loolu duñ ko nangu mukk ñeenteel bomb bi sax mooy tey ñu dem ba di tëj wal Walfadjri foofu tamit ah man de léegi nee naa leen chômage technique man li ma mun mooy ñu bàyyi ma liggéey ma liggéey su ma bàyyul ma liggéey nag ma seetaan leen fi mu ne nii daal suñ bëggee tëj Walfadjri neen jël responsa seen responsabilité may jeexalee ak si Zola affaire Dreyfus bu ñu tegee.